docteur Oumar Dia maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay monsieur Gomis ak euh, maa ngi nuyu téléspectateur Rewmi FM yi yëpp. ma fàttali ni yow euh, jàngalekat nga muy enseignant chercheur ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru nekkit secrétaire général national SUDES njàngale mu kawe mi sorti bu jëriñ bi nga xamante ne moo leen jaboote dafa mel ni ku dakkal bépp idée année blanche ci euh, enseignement supérieur bi ndaxam bokk ngeen xalaat. waa tey déglu nañu euh, euh, suñu ministre de tutelle bi docteur Cheikh Oumar Anne euh, mu ngi doon exprimer ci situation universitaire national bi mhm. ci ci ci ci contexte bu ñu ne ci contexte bu ñu ne pandémie propagation du du du Covid 19. te te ci kàddoom bi dafa dax bépp idée bu mun a nuroo ak semestre blanc semestre invalide année blanche. wala année invalide ministre bi dafa wax ci ci ci ci déclaration am que idée boobu dañ koy dàq complètement que dañ koy dàq complètement ah ñun daal su SUDES enseignement supérieur et recherche effectivement souhaité wuñu ñaanuñu semestre blanc am wala année blanche am ci université yi ñaanuñu ko du tout souhaité ko te dañuy def lépp lu ñu mën ñun jàngalekat yi pour loolu bañ am mais xam nga loolu ñu ngi ci bonne volonté mm. bonne volonté bi bon volonté bi en réalité doyul étant donné que bon volonté bi doyul mënuñu décréter ne que année blanche idée boobu dañ ko dax wala semestre blanc idée boobu dañ ko dax parce que amuñu maîtrise situation bi mm. lu tax ñu wax ne que amuñu maîtrise situation bi c'est que dañu daxaloon dañu suspendre woon enseignement yi ci université publique ci université du Sénégal yi yëpp parce que jàngoro bi mu ngi doon propagé wu Covid bi mu ngi doon propagé ci dëkk bi donc loolu lan la woone loolu dafa woon ne que tant que jàngoro bi tant que Covid 19 bi mu ngi propagé ci réew mi de fait mënuñu en toute responsabilité commencé waat recommencé waat année universitaire yi ci une euh, ci université yi. Hmm. donc en réalité euh, évolution pandémie bi. mooy daal mooy moo commandé moo commandé. Hmm, hmm. est-ce que est-ce que semestre blanc dina am wala du am est-ce que année blanche dina am wala du am loolu évolution pandémie bi moo koy commandé. Hmm. ñu décréter ne. que que loolu du am en ignorant totalement la la réalité. waaw ñun daal su des enseignement supérieur ay réaliste lañu pour ñun réali réalité bi mooy mooy mooy mooy guider décision bu ñu bu ñu war a jël. Mm-hmm. mais encore une fois souhaité wuñu année blanche mais mënuñu décréter ne que. loolu moom dañ ko dàq complètement waaw hmm. parce que amuñu maîtrise situation bi hmm. ba tey ci ëllëgu euh, année universitaire bi bokk na ci lañu jàpp ni mu war a nag lu am solo ndaxte euh, enseignement présentiel bi maanaam teewaayub étudiants yi ak jàngalekat yi foofu ñu njort ko ci septembre octobre ministre bi moo ni xam le ba xam yéen tamit am ngeen yaakaar bi waa xam nga kii euh, le le 16 mars 2020 hmm. le président de la république jëloon dogal que kii yi ko cours yi yëpp ñu arrêté ko ci université Sénégal yi yëpp loolu le 16 mars mais bu bu mu jëlee dogal boobu gouvernement bi dafa amoon en même temps planification euh, planification boobu euh, dafa basé woon ci yaakaar euh, ñu ñu vaincre pandémie bi. Mm -hmm. euh, planification boobu dafa njëkkoon proposé première date de reprise 6 avril ñu jege le 6 avril. ñu gis ne que loolu mënul am reprise mënul am le 6 avril parce que kii bi euh, contamination yi contamination yi ñu ngi ñu ngi yokk ci réew mi léegi ñu daxal date boobu ñu jëlaat beneen date ñu proposé waat beneen dat le 4 mai pour cours yi reprendre ci université yi ñu jege dat 4 mai ñu gis ne tam loolu mënul am euh, parce que kii bi propagation bi mu ngi yokk ci réew mi léegi ñu jëlaat beneen dogal Euh, beneen ñu ñu defaat beneen proposition c'est que ci université yi ñu xool entre le 4 juin ak le 14 juin ban moment la ñu mun a commencer waat enseignement yi en présentiel ci université yi ah loolu jege nañu léegi le le le 4 juin fourchette boobu 4 juin 14 te gis nañu ne que kii bi que euh, jàngoro bi. Mm-hmm. nu muy yokk ci réew mi. Euh, mënul autoriser ne mënul permettre que reprise am ci ci ci ci université yi d'ailleurs ministre bi wax na ko ci ci ci déclaration am ci université yi dafa am ay comité santé hmm. xam naa ne que comité santé am na université Cheikh Anta Diop de Dakar ay médecins ay collègues médecins ñoo ko jiite am na université Gaston Berger de Saint-Louis ay collègues médecins ñoo ko jiite ay infectiologues ak euh, kii ñooy ñooy xam ne daal ay expert lañu ci ci kii bi waaw ci infection lu muy kii mhm. ñoo ñooy koy jiite te ñooñu conclusion yi ñu jot a rendre dafa woon ne que kii bi que propagation jàngoro bi mu ngi yokk ci réew mi propagation ji bi suy suy yokk euh, reprise reprise mënul am en en réalité donc reprise du mun a am ci mois de juin bi hmm. léegi ci yaakaar rek ministre bi mu ngi ci yaakaar be léegi gouvernement bi mu ngi ci yaakaar be léegi ñun tam ñu ngi ci yaakaar ba xamuñu ci dara hmm. yaakaar bi c'est que léegi xëy na ñu mun a reprise mun a am septembre hmm. waaw ñu ngi ñu ngi ñaan reprise mun a am septembre mais ñu ngi ñaan reprise mun a am septembre mais loolu moom dépendrewul ci ñun loolu ci évolution pandémie bi la dépendre bu ñu demee ba septembre euh, jege ñu gis ne que par exemple que pandémie bi mu ngi yokk ci réew mi xam nga reprise du mun a am. Mm-hmm, mm-hmm. Mm-hmm. waaw waaw. ci wàllub examen yi tamit gis nañu ni dara leeragul ci wàllub reprise bi sax. waaye ñu jàpp ni jëwriñ bi jàpp ni kon examen yi moom ci teewaa yëpp élèves yi. ak euh, jàngalekat yi rek la mën a xewee loolu ba xam yaakaar nga ni mën na nekk tamit. ah ñun daal euh, comme comme enseignement yi pour loolu am moom. Hmm. Euh, foog ay même par exemple pandémie bi xam nga jàngoro bi hmm. mu ngi yokk pour le moment ci réew mi bu ñu demee ba septembre jot. wala période examen yi jot ñu gis ne jàngoro bi léegi moom éliminé nañ ko ci réew mi. Hmm. mais xam nga prudence dafa war a am pour infection bi ba bañ a relancer waat. Hmm. pour pandémie bi bañ a relancer waat prudence dafa imposer wu ak ak ay ay précautions prudence boobu c'est que par exemple bu dee ci benn salle dañu doon def cent cinquante euh, cent cinquante euh, apprenants. Hmm. prudence bi mooy pour def cours wala def ak kii examen léegi au lieu de cent cinquante foog mu nekk maximum quinze. xam nga loolu donc foog physiquement ñu yokk salle yi. Mhm. physiquement foog ñu yokk jàngalekat yi physiquement foog ñu yokk personnel encadrant bi mhm. euh, euh, voilà loolu dafa dépendre ci condition yooyu yëpp condition yooyu moom su su amul moom euh, reprise du mun a am condition yooyu su amul examen examen du mun a am en réalité mhm. parce que par exemple mu nu mënuñu dajale étudiants yi yëpp comme nu ñu ko doon defee ci en figuré ay milliers d'étudiants bañ a respecter distanciation physique bi naan cours dina am ci condition yooyu wala examen dina am ci condition yooyu. Hmm. ba tey kon ci wàllum njàng mu kawe mi ñu ngi wéy di dundee yaakaar waaye fii mu mel ni gën naa métti. Eh, ci université Assane Seck bu Ziguinchor nga xamante ne dooraguñu sax cours yi ba mbas mi di dugg ci eh, ci réew mi ba xam situation eh, université Ziguinchor jaaxalu leen. ñun situation université Assane Seck de Ziguinchor daf ñu jaaxal loolu te loolu moom Euh, jot nañ jot nañ ci wax saa ak ministre de l' enseignement supérieur ah parce que xam nga kii université yëpp mhm. excepté université Assane Seck de Ziguinchor pare nañu seen premier semestre ñen ñi ça commencé woon nañu seen second semestre université Assane Seck de Ziguinchor bu ñu defee point de la situation dafa mel ni que commencé wuñu saa seen premier semestre bi mhm. donc xam ngeen ne université boobu mu ngi ci situation critique te ñun loolu daf ñu préoccuper euh, kii SUDES enseignement supérieur et et recherche mhm. te ñu ngi ñaan gouvernement bi situation bu melee noonu en toute responsabilité lu war a am mooy ñu xool de façon lucide de façon froide ñu def diagnostic situation bi ñu tire conclusion bu ñu war a tirer su dee conclusion bu ñu war a tirer par exemple mooy ñu décider que dès à présent que l'année par exemple est blanche ou invalide à l'université Assane Seck de Ziguinchor ñu def ko ñu def ko et ñu préparer une meilleure rentrée en en en octobre en octobre looloo gën ñu par exemple ñu différer problème yi. Hmm. Euh, en 2018 sur université Gaston Berger Berger de Saint-Louis dafa nekkoon dans la même situation jusqu'au mois de mai ba bu ñu doon faat kii étudiant bi Fallou Sène ci mois de mai bi. année universitaire bi commencé wul ci yeneen UFR yi université bi dafa amoon ay années universitaires yu déréglé totalement décision bu ñu jëloon année boobu mooy année bi daal dafa nekkoon une année blanche de de fête ñu tëj yëpp ñu reprendre en octobre gis nañu ko université Gaston Berger de Saint-Louis amatul problème ama amatul problème yooyu donc université Assane Seck de Ziguinchor ñun SUDES waxuñu looloo war a am mais nañu gëstu nañu gëstu ñu évaluer situation bi. Euh, Euh, ñu xool ne dans l'intérêt de l'université euh, lan lan la ñu war a dogal au lieu de différer xam nga rek euh, de différer décision xam nga décision bu bari euh, mun a nekk impopulaire wala décision boo xam ne du neex nguur gi parce que dugal nañ ci koppar et puis amuñu résultat bi. bu ñuy wax nag ci reprise seen i naataango yu nekk ci moyen secondaire ak alimentaire ñoom war nañ ko def ñaari fan ci weeru juin bi waaye gis nañu jafe-jafe yi nga xamante ne tàmbale nañ ci euh, yuuxu wàllu bokk na ci wàllu dem bi dëkk bi ñu ci ŋàññi conditions yi yéen tamit prévoir yi la xeetu jafe-jafe en cas de reprise. ah waaw parce que euh, bu ñu suspendre cours yi euh, ci université publique yi. Mhm. ci bon ci université Sénégal yi. Euh, suñu collègue yu bëre dañu dañu ñibbi soit seen dëkk wala seen kër et cetera en tout cas dañu éloigné wu par rapport à seen lieu de travail. Mhm. loolu dafa woon nekk reprise bu naree am même bu dee vaincre nañu pandémie bi xam nga foog ñu déplacé wu. mais même bu ñu vaincre pandémie bi foog ñu foog ñu foog ñu prudent foog ñu jël ay précautions donc voilà respecter yenn kii donc euh, reprise bu naree am septembre moom euh, ñu lu ñu ci gis. Hmm. c'est que un pandémie bi daal foog ñu vaincre ko. Hmm. pandémie bi suñ ko vaincreul mënuñu organiser un mouvement de transfert des enseignants par exemple d'une ville à l'autre alors que loolu dafay yokk dafay yokk propagation virus bi. finalement euh, yenn euh, ba xam fas yéene ngeen concerté wu ak euh, jëwriñ ji leen jaboote gannaaw kàddu yi mu yëkkati. en fait ñu ngi en contact permanent ak le ministre de l' enseignement supérieur et de la recherche fii nii saa dañ koy ñu ngi préparer benn document SUDES. Hmm. ci ay mesures yooyu ñu war a jël. Euh, mesure yooyu dafa ki ci scénario yi yëpp y compris scénario de reprise en présentiel en en septembre document boobu moom dañ koy transmettre euh, dañ koy transmettre ministre bi ñun lu ñu gis daal foo que dans l'urgence hmm. xamuñu reprise dina am wala déet au mois de septembre xamuñu ci dara parce que nu ma ko waxee évolution pandémie bi mooy commander situation bi mais su naree am c'est que di d'ici loolu foog ñu jël yenn yenn mesure donc foog ñu multiplier très rapidement euh, lieu physique yi ñooy xam ne dañuy accueillir étudiants yi pour promiscuité bañ a am donc pour ñu wàññi risque de contamination yi. Mm-hmm. foog salle de cours yi yokk foog amphi yi yokk loolu foog ñu def ko lu gaaw a gaaw. Mm-hmm. en attendant saali si yokkee jàngalekat yi foog ñu yokk mhm. te jàngalekat yi doyuñu en mhm. attendant mi à distance lu ñu duppee téléenseignement ma ngay wëy ba xam loolu jàpp nga ni mën na wëy ci ab diir ci conditions yu baax te étudiants yëpp mën cee bénéficier wu en fait bu ñu tëjee université yi euh, suñu collègues yi enseignants yi dañu immédiatement xaaruñu saa instance pédagogique wax ne war ngeen def continuité pédagogique wala déet wala gouvernement bi ça souhaité continuité pédagogique immédiatement collègues yi dañu dañu continuer nekk en contact ak seen étudiant continuer par exemple di joxe di joxe document étudiants yi par voie par voie électronique par voie numérique continuer ça par exemple ci yenn niveau yi comme master di def ay cours à distance de, en utilisant plateforme Teams plateforme Zoom di def ay cours à à distance donc euh, immédiatement daal collègues yi dañu euh, euh, dañu trouver benn palliatif. Mhm. palliatif boobu mooy enseignement à distance mais ñun SUDES enseignement supérieur et recherche dañu gis ne que pour des raisons strictement pédagogiques enseignement à distance enseignement numérique mënul remplacer enseignement en présentiel enseignement en présentiel leen mënu ko remplacer leneen mën na ko compléter enseignement à distance mën na compléter enseignement en présentiel. enseignement numérique mun na compléter enseignement en présentiel mais munu ko mais munu ko munu ko remplacer. Mhm. donc loolu en attendant en attendant waa d' accord nañu pour ñu utiliser ko enseignement à distance enseignement numérique ñu ngi koy utiliser mais loolu en attendant la euh, situation bi su normaliser foog ñu évaluer situation bi te ñu compléter waat par ce qu'il y de fondamental et ce qu'il y a de fondamental euh, mooy enseignement mooy enseignement présentiel bi. Hmm. waaw loolu loolu benn benn benn benn point la deuxième point bi euh, bu tax ne que ñun ñu wax ne que kii bi que enseignement à distance bi télé enseignement panacée la c'est que euh, ñun dañu nekk ci république. Hmm. dañu nekk ci ay université te pour ñun jàngalekat yi suñu étudiants yi ñoom ñëpp a yem ci accès à la connaissance. Hmm. ci accès au savoir ñoom ñëpp a yem benn discrimination mënul am euh, dañu leen di jàngal dans les mêmes conditions évaluer leen dans les mêmes conditions léegi dañu retrouver ci situation nouvelle situation exceptionnelle kenn prévoir woon situation bi cours cours cours en présentiel amatul léegi palliatif bi lu ko remplacer pour enseignement à distance la mais par rapport ak forme d'enseignement à distance boobu hmm. suñu étudiants yi yemuñu ils sont pas égaux lu tax ñu wax ko c'est que ñenn ñi am nañu ordinateur ñeneen ñi amuñu mhm. ñenn ñi euh, am nañu électricité seen kër. ñeneen yi ñu ngi dëkk ci village amuñu par exemple électricité seen kër ñenn ñi am nañu internet ñeneen ñi amuñu internet donc xam ngeen ne kii ci situation bu mel ni étudiant suñu étudiants yi yëpp yëmuñu ci accès à la connaissance. Mhm. donc mënuñu wax ne lii doy na que enseignement à distance bi doy na pour valider année. pour évaluer pour évaluer étudiants yi parce que étudiants yi yemuñu ci accès à la connaissance sous cette forme la léegi ñu ngi koy def rek comme pour remplacer ñu ngi koy def rek pour euh, pour pour pallier pour pallier pour compléter en en fait. Mmh. mais situation bi bu normaliser foog ñu revenir à ce qu'il y a de fondamental te à te ci loolu la suñu étudiants yi yëpp a yem su suñu étudiants yi yëpp a yem quoi ci ci situation actuelle bi moom étudiants yi yemuñu. te ñun daal mënuñu mënuñu acté. mënuñu mhm. acté wala valider situation kii situation de fait bu mel noonu. d'accord docteur Oumar Dia Rewmi FM mu lay gërëm bu baax. maa ngi leen di fay jërëjëf euh, jërëjëf merci. may fàttali kon yow ngay enseignant chercheur ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru jiite it oh. euh, Sud-Est national section njàng mu kawe ak wàllu gëstu. tout à fait jërëjëf. jërëjëf kon merci merci